si turu sunu jëwriñ ji ñu fi àndal di Moustapha Diop ñu feggoo sunu xarit suñu wàllu Talla Jaxate ñu ñëw tey fiis si Daaru Minam fekk fi jigéen ñoo xam ne yàgg nañu dégg seen tur ci am jom ak nangoo liggéey ak social ndax képp koo xam ne jug nga di wut lu baax wala ngay jug di ànd ko di wut ko am pasteef dangay fekk ñoo xam ne yéen a bokk aw yoon nga wut leen ànd ak ñoom da di nag Touba nax yi bari na tappale yi bari na wor yi bari na waaye ku leen gis ak seen toogaay dina xam ne yéen ñuy dox ci social ngeen ndax jataay wane na ko kan mooy jëmm ji nga xam ne tey moom lañ bëgg moom lañ bëgg a présenté di Samuel saar ndax ku ko dégg xam ne sëriñ ah, Serigne moo ko yar. dëgg la taalibe la saadix la. ànd ak ay murit ku ne taala mi nga xam ne doom Serigne Saliou ak ku mel ne Moussa Diom mi ak ku mel ne Mouhamed Sylla mi ngi des yoon wi ñëw kon nañu xam ne ñii du ñu ànd ak kuy tappale du ñu ànd ak kuy wor sa lépp lu ñu wax den ko def incha allahu rabbi kon moo tax ñu ñëw fi pour tàllal leen loxo ñu ànd jàppale Samuel Sarr ba lépp li xam ne daf koo bëgg ah mu am ko si si seen jataay bii ndax man ngeen ko so bu ngeen si jàppee takkatoo ci incha allahu rabbi loolu dina am taala nag xëy na qualité yi ne ci moom buñ ko doon wax ma nañ fee fanaan mais incha allahu rabbi yàggatul dara dina la woon résultat bu leer a leer a leer ba koñ bi gis seen bopp rahmatullahi taala ba barakaatuhu tey xam naa sama kilifa sa waru fee nekk may wax muy sëñ Moustapha Diop mi euh, ñu bokk fu yaroo muy sama jëwriñ di sama xarit di sama mag di sama lépp euh, ba tax na lépp lu dugg rek vraiment man dama cay dugg muy ku baax tamit yàlla def nag ndimbal loolu bu mu duggee ci dëkk bi dama ko ni moom bala ngaa dugg fenn moom sama quartier ngay dugg muy Darou Minam euh, ndax ndax bi biñ ci waxtaanee biñ ci waxtaanee daal dama ko ni daal Darou Minam daal moom wax dëgg yàlla soxna yi gis naa ne ñoom positif trop trop trop mais ay moyens lañ manqué daal ku leen jàppale. tey moom engagé wu na ci euh, ngir jàppale leen maanaam euh, nit la koo xam tamit maanaam du politicien man mi du ma politicien mais nag euh, ki nga xam ni euh, moom moo bëgg a jàppale soxna yi am na am na yaakaar ci moom mii am na yaakaar ci moom mii ba tax am na yaakaar ci moom mii ba tax mu euh, wóolu ko ci lépp moom mii te mu nit ku yiw koo xam ni kilifa gu baax gu nekk ci dëkk bi rek jaxasoo na ak yow. muy doomi soxna di ko baax sëñ Saliou yar ko ñu xam ci moom ay qualité yu baax yoo xam ni vraiment képp koy fréquenté rek loolu xam ci moom. tey ji ñëw na fi waaye tamit indi leen 150 mille yoo xam ne muy fanweeri junni yoo may. da ko may mboolem soxna yi fanweeri junni yi nag di leen ko may bokk teg sax financement léegi nee daal li mu bëgg mooy waaw indil na leen fanweeri junni fanweeri junni yoo xam ne di leen may léegi ba pare nag teg ci ni ma taala waxal ma soxna yi lan leen bëgg ku leen ci financé ndax nit ki tamit boo koy financé danaan li leen bëgg kuñ ci financé ngeen wax li ngeen bëgg ku leen ci financé mu financé leen ci waaye fanweeri junni yi moom yéen ko moom mi ngeeg moom moom leen indaale sërica ndax gis seen pësteef gis seen bëgg dëkk bi ak tamit euh, nangoo liggéey fonk seen borom kër yi nee na bu ngeen paree na ngeen wax lan ngeen bëgg ku leen ci financé ngeen waxtaan ci ba déggoo mu financé leen ci waaye fanweeri junni yi moom sëriñ ci la boo xam ne dañ koy indaale yéen ko moom waaw. yéen mbokki waa Daaru Minam waa marché Bayal ba ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay waaye di jël nuyoo bi di ko teg ci sunu xarit sunu frère sunu mbokkum taalibe muy Talla Diakhaté mi sama wet bu ma ko joxee Talla Diakhaté mooy teg naa ko ci loxo sëñ Moustapha mi nga xam ne moo sabab ndaje mi tey di jàppale président Macky Sall ci dëkk bii nga xam ne président wane na fi ak njàmbaar wane na fi ak ngor ndax ni ma koy waxee fi mu ne nii du affaire politique mais ñun ñëpp war nañoo maase nekk benn say ngir njukkale président Macky Sall ñu njukkale Serigne Touba ci moom ndax li mu jëf ngir Serigne Touba ci dëkk bi. maa ngi ànd ak également suma jëwrin sama mag sama xarit Serigne Minikaar mu Serigne Saliou mu ngi nii taxaw. ñu ngi ànd ak Serigne Baba jeng di responsable bu mag fële ca Ndaamaatu nekk également ci ñiy jàppale président yàgg ci te sonn ci kon Moustapha lii ma gis nii dal na xel. ndax réew mi kenn mënu koo defar wala nga jëm ci dara te àndoo ko ak jigéen ñi rawatina Touba gi ñu ne Touba gi ñu ne mën naa wax ne jigéen ñi ay jigéenu jàmbaar lañu ñii ñi ngi ci xolli gerte mi ñii ñi ngi ci defar ripaas bi ñii ñi ngi ci defar rakkal lu ne ñu ngi ciy dugg ngir lu ñu dimbalee seen borom kër yi ci kër yi kon gàcce ngalaamaa jigéenu Touba. tey nag suñu ñëwee fii dañ fay ñëw ci ndigalu président waaye mu jaarale ko ci loxol Moustapha mii mu ñëw seet si leen ñu laaj leen lan mooy seen jàmbat ngeen wax ñu ñu xam ko ñu jël note incha allah ay bis yii di ñëw ñu ñëwaat fi ngir saafara loolu nga xam ne moom ngeen ñu jàmbat. te pré te Tafa mii Moustapha mii ngeen àndal doxul ci ay caaxaan du wax ay caaxaan taala jaxate moom du dox ci ay caaxaan du wax ay caaxaan. kon yaakaar naa ne su ngeen àndeek ñoom ngeen fas yéene jàppale président ñun dinañ nekk seen wet lépp lu ñu mën ci jàppale leen dinañ ko def li ñuy xaar nag mooy ngeen wax ñu fii koñ bii lan mooy seen jafe-jafe lan ngeen bëgg ku leen ci jàppale bu soobee yàlla incha allahu taala ca changé danañ jël ay matuwaay yoo xam ne danañ ko jël suñu diggante ak yéen président Macky Sall li mu def ci dëkk bi def ko ci Touba hôpital bi mu fi def 30 yi foo jaar ma ngi koy tëli. war nañ cee recenser marché bii boole ko ci. te ñun danañ ko def muy sunu jàmbat. parce que seen marché bi président dana ko dégg tey balaa tëdd ci lal xam ne am na marché bu mu war a defar ca Daaru Minnam marché Bayal ba parce que marché bi jigéen ñi ci la ñuy yaxantoo di ci yor seen i kër. kon loolu ñun sunu yitte la na ngeen xam ne dina leen ci taxawal. beneen bi ci des dinañ fexe ba insécurité bi am ci dëkk bi. président Macky Sall mi ngi boo xoolee fii ñu jaar léegi ci tali bi policiers yi ñu ngi ci kaw tali bi di xool nit ñi lan la ñuy dox. leera leeraay nag dafa bokk ci li nga xam ne dana tax dana tax insécurité du bari incha allahu taala danañ xool ak Moustapha ci seen i biir yi jàmbat bu ci loolu bokkee ñu xool naka lañ leen di jàppale même ba ci addition do ñi amul ndox ñu xool naka la ñuy def pour ñu am ndox parce que ñun sunu politique bi ñuy politique du politique gu wax dañoo bëgg di def defu jëf parce que suñu leader dafa jëfal Serigne Touba ba sëriñ Serigne Mountakha ne ko ba mun Mountakha ne ko li ma la yéene duma la ko ñaanal duma la ko ñaanaloo kenn damay dem kalaame ko Serigne Touba loolu nag doy na sëkk ci koo xam ne ab jëfkat la may nettali benn anecdote boo xam ne war na murit yëpp war nañ ko xam dafa sama benn kilifa xarit bu wax président ne ko li nga daj Touba te mënoo koo gañe mu ne ko malheureusement ba li ma fa def def ma ko ngir ay kart dama ko doon defal Serigne Touba. kon nag murid yi ñoo war a njukkal président Macky Sall ci turu Serigne Touba te jàpp naa ne loolu dañ leen a jaxase woon ak président Macky Sall mais bis ni tey ku gis li ma gis ci dëkk bi ak nit ñi li ñuy wax ak li ñu seetlu ak tappale yi nga xam ne feeñ na ci ñi leen doon jaxase ak président Macky Sall jàpp naa ne loolu jeex na te waa Touba gii ba 31 juillet jote incha allah réew mépp dinañ xam ne bañuñu Macky Sall wanuñu ko ginnaaw te danañ ko jox ndam lu yaatoo yaatoo yaatoo. ñun daal ko ànd ak ñun noo ànd ndax liggéey rek nag la ñu xam jigéen joo fi gis mi ngi xëy di di daan dooleem sunu njaboot ak sunu bopp ak bëgg a teeg ñoo ngi ñaan ci yàlla ak yonente bi gëm sëñ Saliou lii nu tàmbali yàlla nañ ko yeggale ci bisimilahi rahmaan ah, tàmbali ci alhamdulilahi rabbil alamin yeggale ko ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi ñaan nag ku nu jàppale defaral na sunu koñ bi financé na lu nu liggéeyee jàppale na ba ci lampi mbedd yi ne di mi lëndëm na ca am mënunoo bañ a génn ca foo guddee ñu ne ramage bi ca fay lampi itam guru lëndëm na bu nu sañal nit ñu jàppale ñu ci yoon yet bu ñu sañal ñu defaral yoon yi financé na nu liggéey groupe bokk jom mboolem ñii toog fi ñëpp koo gis ñu ngi xëy di wàcc bëgguñu lenn lu dul rekk liggéey. di sant sëñ Moustapha Diop mi bu baax a baax a baax ndax lii mu ñëwee tey tax nañu am si moom yaakaar ndax ñi fi daan ñëw ñëpp mun naa ne ñii dañuy tàngaloo ay kafe ñii duñu lebloo ay meew te duñ ko fay kon am nañ ci moom yaakaar. ñu ngi koy sant bu baax nag di ko ñaan nag mu gën ñoo jàppale ndax ñun ay jigéen lañ rek di daan suñ doole boo ñëwee fii suba teel presque ku ne yaa ngi si sa waar ñii ngi si marché yi di nduggi ñii di jaay jën ñii di leb xaalisu banque bu weer dee fu ne ñuy dugg di lijjanti fuñ ko fayee te mënuñu koo am presque la cinq bu jotee jigéen bu nekk fii sa fit dootul dal ndax ñu ngi leb xaalisu banque yi di yaakaar fuñ ko fayee te amuñu ko kon nag ñu ngi lay jox suñu kàddu. am nañu yaakaar dalal nañ sunum xel ba fas na ni yéene ànd ak yow nag engagé wu nañ moom. Samuel Sarr moom macha allah na xam ne rek ñoo ngi ci moom. amuñu laneen luñ koy booleel ndax li ni xëbal yar bu njëkk ba day dal laaw la cat bi mu ñëwee mun mënu jox kafe dalal na sunum xel am nañ ci moom yaakaar fii nag mboolem ku fi da noo yor sunub kaye di ko bind par fooy les baa nga nee. ñooñ ñëpp kenn ku ci nekk day xëy di liggéey deux heures lay ñëwaat këram bu dalloo ba tàkkusaan mu dem mbootaay natti bu subaa fajartee lay xëy ñee nga jëm domine ba ñee nga jëm gaar ba Macky Sall jël na përëm ñee mënuñu ci dara ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ci turu président la république ci turu Samuel Ahmed Sarr moom mi nga xam ne moo ñu fi yebal ma feggoog sëñ Mouhamed sila ak sëñ Minicar ak sëñ Baba Dieng ànd ak fekk si fi sëñ Talla Diakhaté mii. yàlla dafa dogal ñun ñii ànd dafa am lenn ndab loo xam ne ñoo ko bokk muy sëñ Saliou moo ñu boole. keroog ñëw nañ fi waxtaan ak yéen lañ waxtaanoon ak yéen nag mel na ne engagement yooyu ngeen jëloon suñu diggante ak yéen respecté ngeen ko kontaan nañ lool dégg nañ lool ñun nag yàlla dafa dogal mane wuñ wax jëf lañ mane ndax duñ ay politiciens. dëgg la liñ nekk lii ñun du métier politique defuñ ko métier du suñ métier. ñii fi nekk kenn ku ci nekk ab jeune entrepreneur la boo xam ne lam jiite ca mbooloo ak lam jiite ci liggéeyam doy na ko sëkk dañoo dëkk Touba nag gis xéewal goo xam ne si nii bëgg nañ waa Touba xéewlu ci te tamit ñi fi nekkoon di nax nit ñi ak di wax nit ñi wax yoo xam ne dara amu ci ñii dañoo ñëw ngir soppi loolu xar kanam yooyu fi nekkoon moom lañ ñëw ngir soppi ko loolu moo waral ñoom ñu ñëw fi ndax ñun kat kenn ku ci nekk am na loo jàpp Samuel Sarr mi nga xam ne moo ñu fi yebal ñu fiy ñëw ci turam moom Touba gii la dëkk këram a ngi nii jàkkaarloo yoon doon seen dëkkandoo. dëgg la dëgg la kon am na ci loo xam ne bu ko dee def wala mu di ko wax doon gum doon taalibib sëñ Touba doon gum doon taalibib sëñ Saliou moo tax mu di ko def liñ leen wax nag moom la ñuy gën a confirmer waat moo di li sëñ Mouhamed mi wax léegi rek ñëw nañ fi nuyoog yéen di leen déglu liñ leen déglu tamit. ñun de ñun xaaruñ ay weer xaaruñ ñaari weer xaaruñ ñetti weer réaction bu ngeen ko defee réaction sur réaction li ñuy def. li ngeen ñuy wax ci saasa lañ koy saafara incha allahu rabbi loolu daal mooy wax ji. ñoo ngi sant bu baax ñëpp nag. di sant sëñ Talla Jaxate moom mi waral jataay bi di sant sëñ Minicar di sant sëñ Mouhamed di sant sëñ Baba Dieng jërëjëf jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax.